yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV. alhamdulilah rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala zaalimiin wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lil aalamiin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaiin mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi koy dimbandikoo ñu ngi. koy jéggalu ñu ngi daw di làqu ci moom ngir mu musal ñu ci suñu ayu bakkan ak suñu ñaawteefu jëf ñu ngi dëggal di seede ni ku suñu borom subhanahu wa taala baaxe ba nga gindeeku kenn mënatulaa réeral waaye ñu ngi dëggal di seede képp ku suñu borom subhanahu wa taala seetaan ci maanoom ba nga réer kenn mënatulaa jubal ñu ngi jullee ka sëlmal ci suñu sang di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na jàmm yàlla ako xéewalam wàcc ci moom yal na wàcc ci njabootam yal na wàcc ci ay saxaabaam yal na wàcc ci képp koo xam ne topp na leen ci rafetal ba keroog bis pénc gannaaw loolu mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla gannaaw loolu ñu xam ni ñun kat ñi ngi jublu ci jaamu yàlla joo xam ne ju màgg la jaamu yàlla ju tedd la muy benn ponk ci ponk lislaam yi mooy weeru koor gi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ko barkeel ci biir weer woowu bokk na ci barke ya mooy bunt aljana suñ borom subhanahu wa da koy tijji am na ñu ne da koy tijji xaqiqatan maanaam dëggantaan bunt aljana yi day tijjeeku am na ñu ne liñ ci namm mooy yiw yi yi nga xam ne mooy jëm aljanna yoon yi jëm aljanna suñ borom da koy yombal waaye ci biir weeru koor ci lañuy tëj buntu sawara yi ci la tëjit yoon yi nga xam ne moo fa mën jëmale doomu aadama su góor góorgóorloo du ca tàbbi ci biir weeru koor la yàlla di gorele ay ay baat ci sawara ba duñ fa dugg sax sax na ci xadis yu saa sallam wax ni guddi gu nekk yàlla dana am ñu muy goreel yàlla ñu ci yàlla boole ci biir weeru koor ci la yàlla di yëkkati ay dara jaat ci la yàlla di ful ay jëf yu baree bari ci lu ko soob ay ngëneel yu baree ngi ci biir koor yoo xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk loolu nag dafay jaadu ci bépp jullit mu fexe ba màng xewal yooyu màng ngëneel yooyu balaa weeru koor di génn mbokk yi weeru koor ba tey weer la woo xam ne day màndargaal doon goo xam ne eh, al umma al islamiya doon na ko benn xeetu islaam doon gi ñu doon benn weeru koor da koy màndargaal weer la woo xam ne xol yi nga xam ne dafa deewoon mën na koo yee mën na koo dundalaat weer la woo xam ne képp ku bëgg a tàggat say cër ci jaamu yàlla euh, mën nga ko cee tàggat weer la woo xam ne day jëmbat ragal yàlla ci xol yi nga xam ne dafa wowoon dafa du moyu woon boromam loolu nag moo war a tax jullit bu nekk waajal ko waajal dajeeg gan gu tedd goo xam ne yàllaa ko barkeel gan goo xam ne dafa ànd ak yërmandeeg suñu borom armandi ànd ak euh, njëggalam ànd ak li nga xam ne mooy ngërëmam kon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ñu barkeelal baraxlu gi waaye yàlla nañu yàlla jote lañ ci weeru koor weeru koor école la boo xam ne ku bëgg a yar sab ruux ba mu jokkoowaat ak borom mën nga ko cee am école la boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa yor yar sa jikko ba mu tegewaat ci yoon mën nga ko cee am weer la woo xam ne nit ki mën na caa fàggoo yóbbal gu muy yóbbul yu muy yóbbu àllaaxira weer la woo xam ne yàlla da ciy teral woy woor yi yàlla ñu ci yàlla boole mbokki jullit yi weer woowu ñu jublu nag lu ci bari saa yuñ ko jubloo am na ay masala yoo xam ne ay masalay xam la ay masalay feq la yoo xam ne jullit ñi war nañ ko nafaraat war nañ ko gëstuwaat xóotal gëstu ga ci wàllu xam-xam ba xam dëgg-dëgg lan mooy la ca war a doon taxawaayu jullit loolu moo war a doon taxawaayu jullit ci mbooleem jaamu yàlla yoo xam ne da ko war a mi ngi koy dégmal war caa xam euh, atte ya euh, rawatina atte yi nga xam ne dafay euh, laal jaamu yàlla ja looloo tax tey ci xutba bi am na ay taxawaay yoo xam ne bëgg nañ koo taxaw ci euh, masala bi nga xam ne mooy faral di taxaw saa yu ñu jubloo weeru koor muy weeru koor naka lay saxe taxawaay bu njëkk ba dañ ci fàttali ko waxi suñu borom ji mu wax ne yow yenent bi saa sallam ñi ngi lay laaj ci weer wi yasalunaka anil la mu ne wax leen ne leen weer wi de ay digg la ay mawaqit la ay miiqa la ay màndargala yoo xam ne yàlla da cee màndargal ay jaamu yàlla bokk na ca jaamu yàlla yooyu mooy aj aj ñu ngi koy nattee ci ci weer yeneeni jaamu yàlla it aju ci lu mel ni weeru koor yéen saa wax na ni na ngeen woor su ngeen ko gisee na ngeen dagg su ngeen ko gisee waxaat ci beneen xadis ne bu leen woor mukk lu dul ne da ngeen a gis weer wi bu leen woor yi ne da ngeen koo gis su fekkee dafa muuru ci seeni bët na ngeen ko nattale ci beneen nettali mu wax ni su dee dafa muuru ci seeni bët na ngeen mottali dig ba te mooy diggu caabaan ba ngeen mottali ko muy fanweer weeru Shaaban su demee ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu xool ba xam ndax daañ ko gis mu ne su dee gisuñ ko nañu mottali loolu mooy tekki rek nañ ko nattale kon ci ñetti texte yi ma mën nañ cee jële ñaari mbir ñaari at wala boog benn at mooy weeru koor sax mukk lu dul ci ñaari mbir benn bi mooy ñu gis ko su dee gisuñu ko ñu mottali fanweeri fanweeri fan kon weeru koor ak duggam ci ñaar yooyu rek la mën a aju mooy gis gi wala mottali fanweeri fan muy fanweeri fanu baraxlu ñaareelu taxaw seetlu ga dinañ ci fàttaliku xadiisu ibnu abbas mu jële ko ci yonent bi saa sallam mu wax ni benn kaw-kaw dafa dikkal yonent bi saa sallam ne ko moom day gis na weer wi yonent saa sallam laaj ko ne ko ndax gëm nga ni yàlla kenn la te moom dong lañ war a jaamu mu ne ko waaw aha mu ne ko ndax gëm nga ni man mii yonentu bi yàlla laa mu ne ko ah kañ nee na yéen saa daal di sukkandiku ci xabaaru kaw-kaw boobu woor waaye digal nit ñi ñu woor ba tey ñu jëlee ci xadis ibne Umar mu ne nit ñi de séntu nañu weer ci jamono yonent bi saa mu ne man ma gis ma ñëw ci yonent ne ko man de gis naa ko nee bi woor sukkandiku ci sama xabaar nee na digal nit ñi ñu woor kon loolu Eh, mënees na cee sukkandiku ngir saxal ni weeru koor day mën naa sax ci gisu benn jullit boo xam ne maanuteem sax na benn jullit rek su gisee weer wi incha sallam saxal na ni mënees na cee sukkandiku ba woor loolu nag dana wuteeg léeg-léeg nit ku jàpp ne balaa moom weer wi di sax ci àqam faaw da ko da cee tëg bët moom ci boppam loola moom Eh, bokkul ci ñàngileem yenent bi sallallahu alayhi wa sallam in sallam doon na sukkandiku ci gisu kenn moo tax al imam ibn rushd di eh, faqih bu mag di boroom xam-xam bu mag dafa wax ni boroom xam-xam yi day dëppoo nañu ci ne weer muy weeru wolof ci niñ koy waxe eh, day tolloog fukki fan ak juróom-ñeent léeg-léeg mu yegg fan weer mu ne nag borom xam-xam yi li ñuy sukkandiku ci saxal weeru koor mooy gis gi ndax yéen saa sallam loolu la wax nee na suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi su ngeen ko gisee woor leen su ngeen ko gisee na ngeen wori ñetteelu taxaw seetlu ba dañ ci fàttaliku xadiisu ibnu omar yéen saa sallam dafa wax ci xadis ba ni ñun xeetu lislaam day xeet lañ woo xam ne xeet wu illettré lañu maanaam duñu bind waaye du ñu régler du ñu nattale du ñu xisaab mu ne weer wi fukki fan ak juróom-ñeent lay doon wala mu doon fan weer noonu la xadis ba wax loola nag tekkiwul ne xeetul islaam dañ dul mën a bind dañ dul mën a liir waaye lim tekki mooy yàlla seeni jaamu yàlla tegu ko ci li nga xam ne moom mooy nattale loolu lay gën a tekki loolu moo tax ci xadis bi ci la boroom xam-xam yi suk sukkandiku wax ne lépp loo xam ne dafa jëm ci nettaleeg eh, wàccuwaayu weer wi muy xam-xam boobu di tudd eh, dégg nga eh, lu aju ci weer wi xam-xam boobu deesu ci sukkandiku ngir saxal weeru koor moo tax boroom xam-xam boobu di ibnu miin dafa wax ni su demoon ba wér ni boroom xam-xam yiy gëstu wàllu univers bi wàllu falag bi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne weer wi de mi ngi fi waaye nag bi ko jullit ñi gëstoo xool ko gisu kenn gisu ko ci nee na duñ ci sukkandiku ngir saxal duggug weeru koor ndax kat sharia li nga xam ne moom mooy weer wi ak saxam da ko tënk ci loo xam ne lu ñuy laal la waaye tënk ko ci lu ñuy nattale lañuy laal nag mooy loo xam ne dañ ciy teg bët mbokk yi bokk na ci masala yi nga xam ne saa yu weeru koor jegesee coow li dana ci bari mooy ñan ñoo war a bokk gis ànd ànd woor ak ñan ñoo warta bokk gis ànd masala boobu la ñuy tudde ci feq ixtilaaful mataalib muy masala boo xam ne nag dañ ciy def ay taxaw seetlu yi tamit ñan ñoo war a ànd bokk gis woor ak ñan ñoo warta ànd bokk gis woor liñ ci taxaw seetlu bu njëkk bi mooy nañu xam ne masalaab ñëpp àndandoo woor wala boog gox bu nekk rek ña war a bokk gis ànd woor loola masala la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ caa wute démb balaa tey ca jamonoy saxaaba yi lañ ci wute woon kon maanaam masala la boo xam ne ah, nangu nañ ci ak wute ñaareelu taxaw seetlu ga mooy dëgg-dëgg ñi war a ànd ak ñi warta ànd woor dëgg-dëgg dëgg nan lañ ko war a déggee am na ñoo xam ne nuñ ko déggee mooy ñi bokk waxtu ñi nga xam ne dañoo bokk benn waxtu rawatina ñu koy nattale léeg-léeg ci waxtu julli ñi bépp gox boo xam ne ñoo bokk waxtu julli ñooñu war nañoo ànd woor mën nañoo ànd wori ñi nga xam ne nag bokkuñu waxtu ñoonu mënuñoo ànd am na ñoo xam ne noonu lañ déggee masala bi su fekkee noonu la demee moom su boobaa euh, bépp gox boo xam ne da ngaa sa morom ci wàllu waxtu mën ngaa bañ a sukkandiku ci sa morom am na ñoo xam ne niñ ko déggee mooy euh, bépp gox boo xam ne su fa weer feeñee nuñ koo jottali euh, geneen gox maanaam du leen jotal xabaar bi du àgg du àgg ci ñoom balaa koor ngee ñëw su boobaa gox boobu ñaari gox yooyu waruñoo mën a ànd waaye bépp gox boo xam ne su fe weer feeñee mën nañ koo jottali seen moroom ci wàllu li nga xam ne mooy xabaar ñaane gox boobu ñaane ñaa ñooñu mën nañoo bokk loolu nag benn gis-gis la moom it boo xam ne mi ngi ci biir masala mi su boobaa su fekkee ne noonu lañ ko déggee day nañu xam ne jamono moom fi mu ne dox na bu njëkk xëy na xibaar jottali ko jafe woon na doon na jël waxtu bu baree baree bari waaye tey jamonoy dox na tey eh, jumtuwaay yi ñuy jokkoo yi tamit moom it yaatu na su boobaa nag kon lay jaadu mooy képp koo xam ne dégg nga xibaar nga leerlu ko bu wér nga mën nga caa sukkandiku daal woor gis-gis googu nag moom it gis-gis gu dëgër la goo xam ne ci wàllu feq moom it dëgër na te dana yombal dajeeg xeet wi dana ñu bari ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay gëstukat la ñuy tamit ànd nañ ci ku mel ni Cheikh al Islam Ibn Taymiya loolu la saxal ku mel ni Ibn Baaz loolu la saxal ku mel ni al imaam al Albani loolu la saxal yal leen yàlla yërëm ñoom ñëpp moom it benn gis-gis la ci masala mi ñetteelu taxaw seetlu ba ci masala mi mooy euh, li nga xam ne mooy frontière nga xam ne colonialiste yi ñoo ko rëddoon fi tudd Gambie fii tudd Sénégal fii tudd Mali fi tudd muritani wax dëgg fa la li wér mooy deesu ko euh, bàyyi xel ci masala mu ni mel ndax kat soo xoolee réew yooyu ñoom ñoo bokk wax benn waxtu am na ci sax ci réew yooyu réew yoo xam ne day dugg ci biir benn réew wax ne dugg ci biiram day dugg ci biir beneen réew su ci doon joxe misaal lu mel ni Gàmbi xam nga ni moo gën a jege Sénégal ci Casamance Casamance moom jàpp nañ ni ci Sénégal la bokk Gàmbi nag moom réew boppam la waaye nag suñ ko xool suñ ko doon xool dëgg-dëgg moom Gàmbee gën a jege kon xel munta nangu ñu ne Casamance su fa su feeñee Sénégal danañ danañ ci sukkandiku waaye su feeñee Gàmbi kenn du ci sukkandiku loolu moom xam-xam mënu koo saxal loolu mun xam-xam mënu koo saxal ba tax na li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, frontière géographique yi nga xam ne moom mooy yu bi yu yees yi yooye deesu waru koo xool kenn waru koo xool ci masala mi euh, juróom taxaw seetlu mooy réew mu mel ni Sénégal day jaaduwul benn yoon réeroo di fi am ak euh, ak woroo ci duggug weer wi saxug weer wi loola jaaduwut réew la moo xam ne réew mu tuuti la waroon na noo mën a fexe ba euh, euh, waxtaan xool nu ñuy taxawale commission boo xam ni euh, ay boroomi xam-xam ñoo fay nekk fa ñuy sukkandiku yi tamit ci ay règle xam-xam lay doon ba mën a dëppale li nga xam ne moom mooy benn koor gi dëppale li nga xam ne mooy kori gi waaye benn réew Euh, ñii woor tey ñii woor suba ñii woor gannaaw suba léeg-léeg ñeenti ñeenti kor yi sax mun da ko fi gis léeg loolu wax dëgg fa yàlla ba tey euh, xam-xam mënu ko nangu maanaam mënut a tege ci wuteeg xam-xam su ko defee li jaadu mooy lu mel nii réew mu mel nii état jug dajale ñi nga xam ne ñoom la mbir yi concerné muy kilifa diine yi muy borom xam-xam yi muy association islamique yi su ko defee ñu ut benn commission boo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo fay nekk su ko defee ñu euh, méngoo seytu weer wi su ko defee nit ña topp ci seen ginnaaw. loola su amoon day su boobaa euh, Sénégal am gisug boppam ñoom ñi ko moom ñi ko wër loola lu yomb lay doon maanaam mën nañoo sukkandiku mën nañoo sukkandiku ci loola waaye nag su fekkee ne benn réew euh, fukki commission ngi fi. commission bu nekk di saytul boppam su boobaa wuute gi day gën a day gën a yaatu te loolu bokkul ci jubluwaayu lislaam su ko defee kon euh, ñu bàyyi xel ne masala bi masala bu yaatu la waaye mazhab bi nga xam ne sax mooy mazhab bi ñuy sukkandiku ci Sénégal muy mazhabu Malik moom lam jàppoon mooy fu ñu gisee weer wi rek euh, nit mën na caa sukkandiku woor soo doon xool mazahibul arbaa muy ñeenti ngiir yi ñetti ngir yépp ñoom li ñu wax mooy jullit bi fu mu déggee weer feeñ na mu saytu ko mu wér mën na caa sukkandiku woor euh, benn ngir rek ci ngir yooyu muy ngirul imaam Shafii moom moo wax ni gox bu nekk ak gisam léeg-léeg borom xam-xam yi dañuy wax ni euh, al aalamul islami muy monde islamique mi ngi tàmbalee Indonésie Sénégal gii la jeexee ci wàllu dëkk boo xam ne majorité bi ay jullit lañu ñu seen diggante ñoom ñaar. lu ëpp 12 heures de doxu ci maanaam dañuy fekkante ci bëccëg di fekkante ci guddi moo tax ñi jàpp ne euh, xabaar fu mu jógee mën nañoo woor ci euh, diggante jullit ñi fi ñuy séentoo weer day dinañuy bokk bëccëg di bokk guddi loolu nag gis-gis la moom it waaye ku gisit ne gox bu nekk ak euh, gisam su boobaa nanga fexe ba teg ko ci gis ci dégg-dégg bu wér te mooy nga bañ a xatal te yaatal dëkk yi nga xam ne ñooñu wër jege ñu ñu bokk benn waxtu moom ñooñu jàpp naa ni war nañoo mën a ànd woor euh, wute gi nag léeg li nga xam ne moom moo koy euh, suuxat mooy ku nekk di xëcc ci sa bopp te loolu day teqale waaye dajalewut man maa ngi fàttaliku ci jamonoy maam Abdou Aziz yal na ko yàlla yërëm yaakaar naa ni mës nañoo xëy woor ñu jottali ko xibaar ci Gabon. la xibaar ba jógee ne weer wi feeñ na mu digle ne nañ wori mu digle mu digle nañ wari kon euh, ñooña ay mag lañ woon yoo xam ne yu sàmm wante woon ak euh, xam-xam lañu waaye yi tamit ñu sàmm wante woon ak euh, mbooloom mbooloom jullit ñi lañu kon loolu warteef la ci képp koo xam ne kilifa diine nga wala nga doon koo xam ne borom kàddu nga di wax ci turu lislaam nga yee ci saw ñoñ ba par parparloo gi eh, jeex fi te lépp tege ci xam-xam yàlla mën naa dogal xol yi eh, dëppoo xol yi bennoo bañ mën a defandoo jaamu yàlla ji ndax suñ ko defandoo nag ci lay gën a rafet li nga xam ne nag moo fi xew ci jamono yu mujj yi ci ay xëccoo ak i xiiroo ak tasaaroo ci commission boo xam ne mi ngi fi woon doon doxal donte amoon na yeneen commission yi fi nekkoon eh, waaye nag commission boobu fi mu ne nag moom gën naa xottiku loole tamit wax dëgg fa yàlla jaaduwut te képp ku ci war a mën a dox ba waxuma la sax ñoom ñu doon benn waaye ñu boole ko commission yi fi nekkoon yépp ñu doon benn loolu mooy li jaadu te kiñ ciy gën a xaar mooy njiitu réew mi kon ñu ngi ko ci woo di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla ñu muccal bañ àgg ci weeru suñ suñ ca àggee tamit yàlla ñu mucc ba mën koo dund waaye tamit suñ ko dundee yi tamit lépp luñ ca def yàlla ñu ko nangul ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla yàlla def dëgg-dëgg ay jullit yàlla ñu yàlla boole ci jaamam yu baax yi yal nañu yàlla bindal ci weeru kor gi li nga xam ne mooy ragal yàlla ak njub ak li nga xam ne mooy koomal innahu waliyu dalika wal qaadiru alayhi allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim yéen ngi ñuy topp ci Fafa TV